ànd ak Wally dans ma ville ah. ma am. Wally dans ah, euh, di waajal bers bi pour waa adduna xam ne ñun a Wally ñoo ciy ànd incha allahu le 4 juin fii ci saal bu nga xam ni defe naa ne artiste bu nekk li nga rêvé joué fii du loolu moo ñu andi fii tey ngir ñu officialiser dafa Viviane Khadim gàcce kalaama ñoom parce que ay jeunes yu gëm seen bopp aussi parce que jour buy entraîné dafa bëgg di bëgg te ñun artistes yi bu ñuy répété tamit dañuy bëgg di produire produire pour mel ni defe naa ne sax la ci artiste bu nekk moom tey ça peut être waa waa soit waa ji comprendre jaay voie étrange waaw kookoy Cheikh Ndiaye suñu jógee si Cheikh Ndiaye dañuy ñëw ci Soumboulou Bakel Soumboulou yaa ngi toj wéeri wéeri chéri Jojo waaw dañ la fekk tey fii ci biir Paris ñu ñëw fay accord hôtel Arena muy Bercy mhm. doomu Sénégal war fi produire muy Wally Ballago Seck ñu bëggoon xam sa teewaay fii lan la waaw yàlla ba pare sant yàlla ba pare di fierté ñëw ci réewu tubaab bi suñu doom ah, suñu xarit suñu mag suñu frère suñu lépp war fi tëgg am fi bis bu nekk ci 4 bi jamono ji ñëpp xam nañu petit écran bi yaa koy toj. dëgg soppe yi moom partout dans le monde am nga ko. tey lan ngay wax say soppe yi ci àdduna bi. woo ñëpp. damay woo ñëpp waaw woo képp ku bëgg wala nga bëgg képp ku nekk ci wiiri wiiri nga koy bëggee rek woo nañ la ci le 4 juin bi nga xamante ne Wally Seck moo ko xamante ne bis la boo xamante ne Sénégal ko bokk ñun ko moom woo nañ ñëpp am di jàmm yeeg mbokk yeeg ñëpp ndax bis bu spécial lay doon loolu Soumboulou Bathily moo ko wax chéri Jojo dañuy dem xool ci jamaaleem bi muy euh, Cheikh Oumar waaw Cheikh Oumar salaamaaleykum na nga def Ousmane dañ la fekk accord Arena ni Bercy Bercy xel dem ci salle de spectacle bi gëna mag jaar fi muy Youssouma Vous au Sénégal fi jaar muy Wally balago Vous mën nañu xam sa Vous waaw dañuy apporter Wally suñu soutien ndax autoray buy jëm gar sax day corné donc Wally bu fekké suñu frère la di doomu Sénégal ñëw songu salle bi yoon lañu ñëw les arts se donc soleil levant côté bu fété ñi Inchallah, nous rendez-vous le 4 juin Nous ne devant le public De la Réunion Sénégal fekk France. Cheikh nous ma te Espagne sa la. message Espagne pour le 4 juin. Vamos, euh, de la España, euh, el de 4 de junio euh, tenemos cita aquí en el un gran

wala liggéey ba sonn rek. waaw dafa am bés bu mag bu ñu dégmal muy le 4 juin. moo gën de. waaw 4 boobu nag laa bëgg nga wax ñi ci lan moo ciy sa xalaat ak lan nga fiy def fii biir Paris. waaw Tange euh, bés moom bis rek a koy fay ah te ñun moom ñun ñitu ñëpp lañ kii yor bés bi ñun bi ñu amee sunu bés waxoon naa ko Sénégal <coughs> muy bis bu ñu fonk lool ak mu jot mu koy def muy anniversaire du Soleil Levant ci Grand Théâtre Wally dafay jël dolem jël xelam jël ay nitam ko euh, mettre ko ci disposition au Soleil Levant ba suñu réussir ko pap Diouf xew la dañ ko koy defal ko xew dañ ko koy defal bu ko artiste xew la defal bu ko ci nitu la dañ ko koy ñu euh, ci France domi Sénégal yi nekk fii ci France ngir ñu ñëw déplacer wu jàppale wali ak ñom Tafa ci bisam bi ñu euh, euh, ñëw nak euh, fi pour def wali dans ma ville bi rek ci ñu gëna gën a rafetee Yalla yaakaar borom dina ko sopp li ci dess bareetul 45 jours la manam weer ak genn wal dégg naa ni nag tulleeg Mali faut tourner le 4 juin la wax. saa neex da nga am ay soppe biir Europe ah. dama bëgg nga woo ñëpp bésu 4 juin ñi daje fii waaw na ñëpp ñëw jàppale waal yi nit kenn du ko xeebal bésam nit amul lu dul bésam na ñëpp ñëw jàppale ko mu réussir te ñu bëgg sénégalais yi fi nekk bépp artiste sénégalais bu déplacé wu ñëw yaakaar ci yéen pour bésam ngeen déplacé wu ñëw euh, ñëw fekk si ko euh, tey yaakaar nañ ni bés bi dina euh, liñ ci yaakaar ci réussite ñoo ko déggandoo loolu la waa acteur Wiri Wiri indi comme participation date majeure bi nag di kañ la 4 juin fii la ci arena Accor Hôtel Bercy maanaam Wally Ballago Seck war fi ñëw la 4 juin yaakaar naa ni ay sa bën na sañ lay doon tungu ne du teew nag ñii na taaw